yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa mbokk yi mbokk internet yi Touba Vision ñu ngi taxaw ak kenn ci jàmbaari liggéey bi di jëwrinu daayira Jazbul Xuloob daayira Jazbul Xuloob nag buñ ko waxee muy daayira boo xamee ne dafa féete ca ndakaaru dajale sët ak taalibe yi sëñ Ahmadou Seen yëpp yi nga xam ne dañoo nekk ndakaaru te seen pas-pas yëpp nekk benn mooy fexe nañu ñu liggéeyee liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba waaye liggéeyal Cheikh Ahmadou seen mi jaareel ko liggéeyal Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba jaareel ko ci seen jëmb ji muy Cheikh Ahmadou Sène kon ñu taxaw ak moom bëggoon ko laaj mu jox ñu ay yëg-yëgam. ci bés bi ak taxawaay yi ak waajtaay yi ba ñu yegg si fii ak mu mel ni daal dëpp yëmb na ñu bëggoon daal mu joxe ñu ci ñu jox ñu ci ay ay ay tegtal kon Serigne basiru Diouf ñu lay denk kàddu gi. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Jibril ñu ngi lay nuyu di la ziara yaak mbokki tuuba Vision di leen sant di leen gërëm euh, noonu yi nga ko waxee it bis bi euh, daf di bis bu réy si ñun. bis bu kawe ci ñun macha allah eh, ndax siiw na ci la cheikhul xaddim waxoon suñu maam ju baax ba eh, sëriñ Mouhamadou Sène eh, ca ba mu nekkee cag lëndëm ba egg ca moom it dafa ne ko lii nga nekk boo ci boo boo ci jógewut jaxal na ma nga jëm macha allah waaye suñuy tegtal boo ko toppee incha allah rabbi aljana nga jëm yaa koo àndal. mu xam loolu ba mu eggee it lam ko xamal xamal na ne ko samay sama kàddu sax na sama gétt sax na sama saq sax na séeréer nag euh, bu fekkee am na lu mel noonu dara doo du ko tëëti waaye la ca ñuul mooy mbëggalu bàmmeel la ragaloon looloo taxoon mu egg ci Cheikhul Khadim ba mu ko joxee tegtal ya euh, tuddee ko Mouhamadou Sène euh, macha allah. am tegtal yu mu koy wax xamal ko ne ko da ngay toxal say kër euh, te yaatal sa xol te kuy wuti nit doo nit macha allah mu xam loolu taxaw ca taxawaay bu mat sëkk euh, mu egsi ba ci doomam ju baax Serigne Ablaye Sène euh, macha allah mu jëlee mbir mi fa mu newoon indi ko fu yaatu fu kawe fu ñëpp xam murid saadix ba macha allah. noo nii mu ko doon waxi ay doomam it ñun ci lañ fortaatu dégg ne euh, léeg-léeg loo leen di wut wut leen ko ci taalibe te bis boo leen àndee euh, macha allah loo leen bëgg di ngeen ko am ci taalibe ñu ñu nekki tu tànk di dégg loolu ci sunuy kilifa sunuy jur ba màgg xam ne loolu moo ñu jëme kanam ndax lii yàgg naa am ndaxte cent septième édition du caaxaan du ñetti fan macha allah léegi bu fekkee egg na foofu ñuy dégg lu mel noonu te nan nan ko doon doxalee dañ doon ñëw rek mu jot ñu ñëw sangu solu ñëw bu ca subagaa gaa ñu ñibbi waaye mi ñu demee toog ba xam mag xamal ñu. Euh, ñoom ñoo bàcc ñag bi la ca génn ñoom la kon sauvé nañ ñu ca lay lore ca ñag ba macha allah ba yooyu yëpp amee nag ñu dégg ñu ne booloo googu moo ñuy jariñ booloo googu moo ñuy yokk booloo googu moo ñuy jëme kanam ñu daldi faslante toog waxtaan ñun ndaw ñi dal di nekk foofa ca saw waxtaan fa ba déggoo ci kàddu taxaw ko taxawaay boobu euh, macha allah képp kun ko wax day bëgg a jël mbir mi sax euh, ëpp la ca pësteef di ci def li mu mën ak li mu mënut jàppale ñu ci surtout xale yi macha allah maak Assane mais ak ku ñuy wax Serigne Mbaye Guèye Sène euh, euh, ñun ñoo nekk ca bopp ba macha allah Abdourahmane waaye toir fakkalla ñi ci suuf macha allah lépp loo xamante ne euh, dugal nañ ci suñ loxo muy xaw di nuroog réussit xam leen na xale yi la kenn mënu leen a fay mënoon nañoo ay ndaw lañu te am nañu. la ñu tollool munoon nañoo dem ci barabu yi nga xamee ne texewaay la macha allah kenn euh, ñu nga xati barab yoo xamante ne kenn du ko rafetlu waaye xam nañu la seen maam digle woon xam nañu fa seen maam tegoon seen tànk ñu ñëw taxaw ci fu mel noonu di liggéey liggéey toll nii moo tax macha allah bés bu mel nii. kon nag loolu daal lan mënoon a wàccee sunuy kàddu di ko joyal ci bis bi euh, di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. Cheikh Basir jërëjëf. am na solo kaddu yi leer nañ lool ñu xam ne liggéey boobu macha allah bu am solo la boo xamee ne daayira Jazbul Qulub mu ngi koy def muy liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla bañ ci duggee ak léegi am na lu ñu yëg loo xam ne ay coppite yu bari yoo xam ne yëg nañ ko ci ni nga xam ne noonu lay doxee kon ñu ngi leen di ñaanal ci barkeb ki nga xam ne moo tax ngeen di jëf jëf jooju fu ngeen fi bëggee yegg te lépp ànd mu sëriñ bi ngeen am ko ci barke Cheikhul Khadim xanaa ñu jox ci sëñ Assane Ndong moom itam ki nga xam ne dañ koo taftal ci sëriñ Basirou mu bokk ci liggéey boobu moom it di ci jàmbaar ñu jox ko rek moom itam yëg-yëg bi mu am ci bés bi ak itam yëg bi nga am xam ne moom lay am ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy defal Cheikh Ahmadou seen fii ci Daaru Ngégéy. sëñ Jibril asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bu ñu sant yàlla sant rasulillah sallallahu alayhi salaam ñu ngi leen di sant bu baax. d'abord di di la ñaanal pour yàlla euh, yokk saw fan yokk sa sa mun-mun parce que xalaat bii nga xam ne lii nga fi andi tey ginnaaw yàlla lu waaye def rek si àdduna nit a ko xalaat si sa vision la jóge ñu ngi ñaan pour yàlla yàggal la fi yokk la si barke Xaadim Rasul mais c'est normal noonu la mën a demee parce que àdduna nee nañu lu waay ji rek moom ngay saxla sa waajur wa yàlla na sunu borom yokk leeram Euh, si tànk bi mu leen bi mu nekkoon rek ci ngeen nekk. Mm-hmm. loolu ñu mun si am lu leer lu nu fekk kon ñu ngi ñaan pour yàlla yàggal la fi lool si barke Xaadim Rasul waaw loolu lu am solo la di ñaanal aussi man li may def rek mooy sant sant daayira bi daayira bi boo koy sant euh, da nga siy jiital njiit li muy sëriñ Bassirou juuf ñuy ñaan pour yàlla yàggal taxawaayam si barke Xaadim sol parce que jiite daayira yombul. daayira bu xamee ne euh, li si nekk boo ko calculé ëpp na cent personnes mhm. lépp di ay setti sëriñ to sëñ sëñ Ablaye seen way mhm. kooku euh, jagleel la mhm. euh, kon ñu ngi ñaan bur yàlla yàggal la si kanam njaboot gi di ñaanal njaboot gépp loolu nag li si am solo rek mooy xam nga li am mooy sëriñ Jibir daayira bu ne am na mais ñun seeti sëriñ Ablaye dañu war a xool si comme ñi mel ni yéen ngeen xam ne seen jëf si bés bi seen taxawaay si bés bi lu nekk la kon loolu mooy waral ñuy ñaan buur yàlla yàggal leen fi yàggal ñu fi mais da ngeen a doy sëkk image si comme ñun ñu góor góorlu si yoonu Sëñ Ablaay gis nu fi Ndakaaru partout la ñuy dox Sénégal gis nga daayira yoo xam ne chaque année ñu dajale prix de vingt millions trente millions yóbbul ko ki fi nekkal Xaadim Rasuul ñun yàlla may ñu loo xam ne sunu borom moo nu baaxee jox ñu ku mel ni Sëñ Ablaay seen goy kon yaakaar nañu ku muy sa waajuru ndey mbaa sa waajuru baay war na am comportement boo taxawee si yoonu bés si bés bi kon ñuy ñaan Basiru ñi nga jiite ñu nangul sa njiit li yal na buur yàlla yàggal leen fi yàggal ñu fi si barke Xaadimu Rasuul vraiment jib ak cant la kër def mais cant gi moom kon ma wax ko encore encore une fois vraiment mënuñu la ñàkk gërëm sa taxawaay duñ ko gis trop trop trop trop di ñaan sëriñ Thierno Sène yàgg fi lool te wér ci barke Xaadim Rasuul sëriñ Modou Magam ja yàlla yokk leeram si barke Xaadim Rasuul jabor sëriñ Ablaye gépp pour yàlla teg leen loxo allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon kon jërëjëf jëwriñu daayira bi kon liggéey bi kon noonu la demee kon ñu bàyyi leen ngeen delluwaat ci liggéey bi bu ko defee ñun ñu weyaat ci liggéey bi nga xam ne moom la def rek dugaat ci biir kër gi fépp foo xamee ne lu baax la rek ñu fas yéene koo tëgtal incha allah. الملك يا من جل الخوادم ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن خاد ارحم جميع الورى